wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah seydina muhammad bi alihi wa sahbihi man lafa lifawum wa salaka maslakawum sulukawum ila yawmi alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bu tedd bi sallallahu alayhi wa nuyu suñu sëriñ suñu sang maulana sang abubakar barhaamu njaay di ndokkeel bu baax Mawlana Cheikh Ibrahim ci weeram wi comme ni mu ko doon waxee boppam naan anihan li Ibrahim laaha xilaaluhu xilaalun bada li naazirina jamaaluhu xilaalu rabii fii jaa muhammadun fatamalana albushra wa amma nawaaluhu mu daan yegg ba ci li afdali ardin xalla afdali mursalin bi afdali yowmin fastabaana kamaaluhu ñu ngi ndokkeel suñu sëriñ bu baax beneen yoon mooy Maulana Sang Barxamu Njaay di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan euh, waaye nag participation bi muy joxe ci gàmm bi ñëpp xam ko yàlla dëgëral ko bu baax bi jaay Maulana wax seedi di ndokkeel euh, suñu mbokk internet yëpp di nuyu de passage waaye di nuyu suñu naataango yoo xamante ne moo fi ñëw muy euh, Souleymane Ba di ko bu baax di ko wàccee ci wàccuwaayam di ko ñaan yàlla bu baax moom yàlla dëgëral ko yokk liggéeyam bu baax a baax ba mu yegg fu kawe njortam ñu ngi sant yàlla bu baax ñu fas yéene ñëw di waxtaane ci juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye nag spécialement ci maarifa wax dëgg yàlla mu nekk sujet bu raar nit ñi li ñu xamoon rek mooy juddu yonent bi doyoon na waaye nag ci maarifa wax dëgg yàlla nag yonent bi mbiram yëpp waroon na xam ne maarifa parce que moom melul ni kenn bokk na ci rek ne moom bi muy juddu lam jiitaloon mooy ay tànkam la jiitaloon ca peelu jonkan tudd borom xool asamaan tudd boromam contrairement à nga xam ne bu ñuy judd suñu bopp la ñuy juutal daneen tudd yàlla waaye ci beneen anam dañuy jooy ñun kon kooku wax dëgg yàlla am juddoom gi jar na jàngale bokk na ci ba muy juddu ne dafa indaale làmbaay boo xamante da ko muuree ay cëram ci partie intime am nga xam ne du feeñ bokk na ci ba muy juddu day fa indaale tësngël contrairement à nu waaye dafa dugg néegu góor contrairement à nous hmm. moo tax bàyyi mu ne mawlidun la xayaral uqulu bi irhaasalil Moustapha jazil nawal mu ne judd la goo xamante ne gëlëmal na xel ndaxte ci melokaan boobu mu juddoo bu doon jigéenu tey la xam naa dina daw ne jur naa junne waaye nag yàlla lépp loo xamante ne da koy def rek da koy préparé di ko toxal di ko jëlee ci ay qualité di ko wàccee parce que qualité la war a produire moo tax bàyyi na daf ñuy jàngal ci yonent bi salaa salaam di ko commencé fu sori day commencé ba ci leer gi moom ba nga xam ne yonent bi leer rek la woon ndaxte ku nekk xam na si ñun ne yonent bi ku fi yàgg la parce que bàyyi nee na innahu la basaratu haazal kawni haazal kawni iskaana mursala ne yonent bi mooy njiyeefi kawnu gi yàlla daal bi mu bëggee amal dara lenn rek la amoon comme matière première mooy yonent bi moom la ji bi mu ko jiyee moo sax bi mu saxee lépp am yonent boobu nag buñ demee ba ci benn jamono ñi ne ci temps la juddu at sàngam ci bés sàngam ci weer sàngam wax dëgg yàlla am kon lu jiit loolu war nañ laajte lan la woon loolu nag mu nekkoon ak leer goo xamante ne yàlla mi ngi doon toxal di ko jëlee ci yonent yi mu déparé ci aadama jaar ci ñoom siisa jaar ci yonent yàlla nu waxoon jaar ci ibrahim brefement rek jaar ci Moussa jaar ci Ansa diggante ba Essa kenn doxu si mu door a wàcc Medina mu door a wàcc màkk boog yonent boobu la ñu bàyyi di jàngal naan nuuru awalu wujud wujud ne bi moom leer la woon leer la goo xamante ne njëlbeenu am la ci am avant dara di am li amoon lenn rek la mooy leer yi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne nag lam yazal nuuru fi ayni ilaahi fi intixaali fil kawni baax di intixaali mooy leer googu nag mosul dañ di nekk ci jëmmu yàlla ji ñii ne jëmmu yàlla ji ñii ne ci bëtëb yàlla bi ñaari prophète na yàlla moo jël leer gi teg ko bët di ko xool muy toxalu mu koy suivre muy toxalu finti xaali fil kaw nii muy toxu ci kaw nu bi baax dinti xaali gannaaw toxu bu feeñee place sàngam bañ noonu rek mu feeñ place sàngam moo tax bàyyi nee na fa aayu jamii li aayu muhammadin mbooleem kawteefu yonent yëpp égal kawteefu yontu yàlla Muhammad sallallahu moo tax yontu bi mu ñëwee kawteef yëpp dafa folleeku kawteefam rek moo des bàyyi di ko woy naan lawu ayatun tabra badama talasha shiwaha ayna zal manni wa salwa nee na ñeel na yontu yàlla ay kawteefam day des gannaaw boo xamante ne ku dul moom ay kawteefam day foleeku bàyyi na ma jox exemple nga ne waaw mu ne ayna zal manni wa salwa ana borom man naak salwa yoon yàlla Moussa moo ko moomoon wa zalna aleykum ghamama wa anzalna aleykum manna wa salwa kulu min ma min ma razaqnakum wala zalamuna walakin kanu anfusihim yazlimun loolu alquran moo koy nettali bàyyi nee na kon ana borom mën kon ki nga xamante ne moom moo gën a xam ñëpp yonent bi bi muy woy moom dafa départ ci leer gi leer googu nag mooy Muhammad it yonent yàlla Muhammad xàqiqa bi ki feeñoon Màkka kooku mooy mazhar bi mooy feeñuwaayu ki ki ki nga xamante ne mooy maqaama bi maqaama bu ne rek day am koy feeñoo masalan boo jëndee téléphone nga ne iPhone 15 nga dafa am benn carton bu lay jox bu ko defee carton bi téléphone bi nekk ci biiram ñi bind ci carton bi iPhone 15 ay carton boobu nag mooy wane ne téléphone bi iPhone 15 la waaye moom du téléphone bi ki feeñoon nag. kooku moom mooy martaba bi nga xamante moo doon jàngale yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye maqaam bi nag moom nekkoon na lu jiitu loolu maqaam boobu nag ci la yonent bi doon waxee naan kuntu nabiyan aaliman bi nu nubuwati wa aadamu abul basar baynal maa'i wa tiin nekkoon naa yonent xam sama yonent fekk aadama mi nga xamante ne mooy cosaan mi ndaafoon yi mi ngi ci diggante ndox ak ban kon yonent boobu ku fi yàgg la bàyyi di ko jàngale ne rasulun la mina mawla yonent la boo xamante ne dafay bàyyi ko ci borom bi tabaraka wa taala fekk wa aadamu lëm yakun aadama amagutoon waaye wa yabqa day des rasulan di ab ndaw daa iman ba faw wa muhazama di nekkuñ kuñ màggal loolu tax ñu koy màggal ba tey fi ñu toog ni kon Mawlana Cheikh Ibrahim amul kenn ci yonent bi leer googu nag lay wax ne mooy xaqat Muhammad yëtu leer googu nag la yàlla jël tëj ko ci biiram ñoom ñaar ñi def li wax xaati bante yàlla di waxtaane yonent bi nga xamante ne moo nekk ci biiram ci yàlla am gi nga dégg yàlla di wax naan kuntu kanzan lam uxraf man yàlla nekkoon naa benn suuf boo xam ne kenn xawuma fa ahbabtu bi ma bëggee an a ñu xam ma fa xalaxtu xalxan ji nga mindaafun baa ngi noonu mindaafun boobu fekk fi aadama sax amagut sa ngi nag muy jàngale mu ne foofu mooy zaatu xabla tajalli fekk boobu laa sifatan melo yi amagut wala isman wala xilaafatan wala wala kayfa maqaama saqi wal maqi wa dakki wa fanay fana fekk boobu melo yeeg tur yeeg jëmm yeeg kuutu ak ku ñu wutu yëpp dara amagut leer boobu nag moo toxalu bi mu toxalu nag wàcc fu ñuy wax xaqiqatu muhammadiya xaqiqatu muhammadiya boobu nag ndeysaan moo gëlëmal yonent yëpp parce que leeru xaqiqatu muhammadiya bi sang bi day jàngale sang bi Barhaamu Njaay mu ne yonent yëpp dañoo gëlëm ci xaqiqatu muhammadiya ndaxte bi ñu ko gisee ñoom dañoo foog ne leeru yàlla gi leen gis moo tax yonent boo dégg rek da ngay dégg mu naan yàllaa ma yónni alors que yàlla kenn la yónni mooy yónni yàlla Muhammad sallam parce que di nga diggante zaatu ak xaqat moom nitu kenn doxu fa ba fa mën a jëlee dara képp ku am dara rek yaa ngi ko jëlee fan ci xaqat Muhammad itu te kuy xaqat Muhammad mooy yónni yàlla Muhammad sallam moo tax mu ne yónent yëpp fi ñu jëlee seen yónent moo ci nubu Seydina Muhammad sallam moo tax ndeysaan Alxuraan di ko jàngale si làmmiñu yonent saa salaam mu ne kataba laaw la axlibanna ana wa rasuliya yàlla dogal na bind na ko ba mu leer nañ décrété na lu metti métti man yonent yàlla Muhammad saa salaam maay gañe maa ak samay ndaw man ak samay yonent kon yonent yàlla Muhammad saa salaam mooy yonent bi yàlla bi waaye yonent yi yontu leen salaa salaam moo tax bàyyi di ko jàngale nag mu naan lam yasal nuru fi ni illaahi fi intixaali fil kaw ni baax di intixaali moom la bàyyi di jàngale ba tey nag nag su ma xataa xalla wa tajalla nuru bi abdillahi ali mu ne leer gi nag ma ngay toxalu di toxalu ba wàcc si abdullahi abdullahi boobu nag moo gëlëmal nit parce que bu dee abdullahi ci zahir mooy doomu abdul mutalib bokk ci ban Hachim waaye nag ndax buubul la bàyyi di woy xaqiqatan parce que yaa ngi laaj yonent bi ci maarifa kan moo Abdoulaye kon kan moo war a nekk bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye nag gannaaw zaatu benn maqaam moo feeñ mooy xaqatu muhammadatu kon leer gi bi mu jógee ko ci zaatu tabaraka wa taala fi muy wàcc mooy xaqatu muhammadatu te kooku la yàlla di léebee Abdoulaye te ku nekk nag xam na ne xaqatu muhammadatu moom mooy Abdoulaye xaqan moo tax bàyyi di ko way mu ne wa abdoulaye wa abdou xaqan wal anaamu abidu moom kese mooy jaamu yàlla bi waaye mi foon yëpp ay jaamam leen mu ne ko nag fa kun lii yaa muxtaari kun lii la dal jëras abdoulaye boobu nag mooy dëgg-dëgg xaq mooma ditoo ndax lu tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ana minallahi wal muminina minni nee man kese maa bàyyi ko ci yàlla waaye képp koo xamante ne gëm nga yàlla ci man nga bàyyi ko kon naka la mbir yi demee ba mën a soppeeku ba yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi bàyyi ko ci Abdoulaye kon loolu wax dëgg yàlla am gëlëmal na xel moo tax bàyyi di ko lépp mu ne mawlidun ayaron xulu juddu la goo xam ne gëlëmal na xel waaye nag bàyyi ma ngay continuer di jàngaleem su ma xataa la diyaawu wata jàllaa nuuru bi abdullahi ali pay ba avancé waat ci beneen maqaama bàyyi di jàngal mu ne aasiqat wu nisaawu yabsul na anwaalan lawu min ajli baha wa jahal wa jamaali qaala amal araamu fal mawtu duuna fi kalaami ya maqaalu ahlu kamaali bi loolu weesee abdullahi téye leer mooy leer ak bi saa sallam bi zaatu min ci xàq moom la àqal moom it boobu nag la ñuy misaale Abdoulaye mu téye ko jigéen ñi di ko sàkku ci moom asixatu nisaaw di fay alal ju bëri yabduna am waala lawu min ali baha min ajlil baha wa jamaali ngir dayoo taaram ak màggaayam ndeysaan ci biir jigéen ñooñu yëpp yàlla tànn ci kenn jox ko leer gi loolu nag am na misaal mooy xàqatu Muhammad bi nga xamante moom la yonent yoree ci ak nu bootóom jigéen yi koy sàkku mooy lan mooy waliwu yàlla yi ndaxte gannaaw nubuwa wilaaya parce que zaatu moo amoon mooy pays yàlla xaqat mahamaditu mooy pays yonant gannaaw xaqat mahamaditu nag lu ñëw ahmaditu mooy pays Cheikh Ahmad Tijaan te zaatu mooy yàlla yàlla bu bëggee amal mindaafoon yi foog mu amal góor amal jigéen xaqat mahamaditu mooy pays góor waaye ahmaditu bi nga xam ne mooy wilaaya Cheikh Ahmad Tijaan mooy pays jigéen moo tax bi bi nga Abdoulaye téye rek góor ñi sàkkuñ leer gi te pourtant ah, leer gi bi mu nekkee ci maam Jaw muy Abdou Moutalib góor ñi nga doon sàkku di ko xëccoog moom. xataa ci biir doom yi doom yaa ngi doon xëccoo ay doom góor yàlla jox ko ci kenn moo tax bàyyi mu ne ni aasiqatu am yabzulna amwaalan lahu min ajli ba wa jamaa léegi nag moom mu ne xaala xamal araamu man daal def lu araam fal mawtu duuna duuna fi kàllaam yi maxaalu ahlu kamaali mu ne daal man dee moo ma gën a def lu xaraam waaw naka kon avant yonent bi doon ñëw sallallahu dagan amoon na est-ce que avant yonent bi di ñëw sallallahu alayhi wasallam xaraam ak dagan ñu amoon na waaw ma delloo la ci waxu baay baay nee na jaa bi samhati anifati bayda wa diini ibrahima jadidi siqaali wa kubay xubay la diyaani hamma dalalun lastu tadri muharaman min min xalaali nee na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dikkee na ci dikk boo diine boo xam ne diine buñ fomp la jonj ko ba mu set wecc amul dara lu ci tax te lu jiitu yonent bi ñëw mu ne réer matale woon nit ñi xamuñu woon xaraam ak dagan te li ngay jàng nii bàyyi di euh, yonent di wax naan Abdoulaye bi nga xamante ne moom mooy bàyyi bi di wax man du ma def lu xaraam boobu sharia bi ñëwagutoon kon rek sharia lu fi yàgg la woon léegi nag bàyyi mu ne at xafallaa waslawu binte wax bin yàlla jël jigéen yëpp mu tànn ci kenn muy bintu Wahab mu jox ko leer ga kon xàqatu moom it mooy Abdoulaye waaye na jigéen ya doon sàkku leer ga mooy wilaaya wàllu yëpp a nga sàkku yàlla sàkku na aynu wilaayati mu jox ko Mawlana Cheikh ma Tidiane moo tax kon passation de service la seetlu nag ba nga xamante ne leer ga toxu na ci. Aminata ndeysaan jigéen ña Abdoulaye def na benn benn benn fikra gis na leer malaaka yi ko doon topp toppatuñ ko xataa sax jigéen ñi ko doon topp di ko sàkku sàkkootuñ ko moom mu demal boppam ci jigéen ñi ne leen waaw li ngeen ma doon wax ne fu ngeen toll ñu ne ko ñun ñoo la fayoon téeméeri gërëm pour nga ànd ñun ñu ne ko ganaar jëlal dooñu ko kon nekku na Abdoulaye toppoon nekku na Abdoulaye leen toppoon waaye nag ki ñu toppoon ndeysaanam mooy leer yonent gi nga xamante ne moo nekkoon ci biiram leer gi kon toxu na ma nga ca Amina ba mu ko toxee nag bàyyi mu ne këm atadha bashairu wa hiya ubla bi rasulin yanlu li anlin maqaami nee na nag bi nga xamante ne aminatu bintu wahab mi ngi ëmb yonent yàlla Muhammad sallam malaaka ya doon topp abdullahi toxu nañ léegi ku ñu ñëwal ci aminatu bintu rasulullah sallam kon maam Diop mooy zaatu aliyati mooy jëmi yàlla ji Abdoulaye mooy xaqat mamadatu waaye nag Aminatu bintu Wahab maqaama la mooy Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane waaye ëmb mooy kan ndeysaan moo tax dañuy sant yàlla bu baax baa dee wax ne lawlal habibul murtada maa nii la maza yurtada wa diinuhu lazi irtada ilaahu fil azali nee na bu tax doon suñ soppe bi nga xamante moom leen gërëm kenn du am luñ gërëm ndaxte diineem bi képp képp képp lañ gërëm koo gërëm yàlla moo ko gërëm te gërëmee na ko ci asal léegi loolu mooy lan li mu wax foofu mooy maanaam bu tax doon yonent bi xataa neuf mois yi ñu ëmb képp koo xamante ne nga xam ne bala ngaa judd dañ ci da nga mois yooyu lu yàlla gërëm la moo tax nga judd bu tax doon yonent bi doo am neuf mois yooyu judd bu tax doon yonent bi doo am baay bu tax doon yonent bi doo am yaay bu tax doon yonent bi doo am ëmb parce que yëpp ay maqaam la ci lislaam te islam bi yonent yàlla Muhammad ci la la doon xaar moo tax alquran da koy jàngalee alquran day wax ne fa aqim wajhaka li diini xanifan waaye nag fitratallaahi allati fatara naas alayha laa tabdila xalqillah zalika diinu xayma walakin nag aksara naas laa yaxlamuun xam nga wax la yàlla ne fa aqim wajhaka na a jubal sa jëmm li diina fan ci diina boo xam day jub kocc wala si nëng mu ne diina boobu fitralaay moom mooy bindab yàlla bi alazi bi nga xamante ne fatara naas aliya moom la yàlla bindee nit ñi yàlla bindam bi ni yàlla men noonu la diinam bu bindoo te diinam boobu nga xam ne moom la yàlla bindoo moom la bindee nit ñi kon nit yàlla da ko relier ak diinam bi mu jàpp li tax nga war a jàpp diine mooy diine bi égal yow te nit war wuteeg boppam xam nga nit kuy wuteeg boppam dof la léegi nag moo tax diine bi mu ñëwee lu mu indi du islam iman ihsan jëlee yàlla mi nga xamante ne moo bind mindaafoon yi yàlla mooy zaatu xaliyati fekk boobu kenn amagut yàlla benn islaam muy bàyyi mindaafoon yi képp ku judd rek maanaam pour nga judd foog nga am baay baay boobu li muy représenté yow mooy islam waaye foog nga am yaay islam boobu li ci génnee mooy lan mooy imaan moo tax yàlla bu bind aadama génne ci awa moo tax mu bind ci iman imaam boobu mooy représenté yaay mi ndaa foon yëpp a wilaayatu dafa jaram mi nu boobu saafiya wilaaya mooy li jóge ko ci nu boobu nekk lu sell moo tax góor fu mu bàyyi ko si jigéen guddi fu mu ko ci bëccëg bëccëg boog fu mu ko ci guddi shari tarixa fu mu ko ci tarixa ci sharia kon ala kulli haalin lii moom mooy wuutee bi nga xamante ne yàlla mi ngi amal naan inna fi xalqi samaawaati wal ardi waxtilaafi layli wa naar xoolal gis nga nekk na ci bind gi ma bind asamaan suuf ak wuutee gi xamante ne guddi gi ak bëccëg gi wuute na ko la mooy asamaan beeg suuf si ak wuutee guddi ak bëccëg mooy wuutee sharia ak tarixa moo tax toujours ñun dañuy kontaan ci alxuraan di ko mën a méngaleeg euh, li nga xamante ne moom la euh, moom mooy moom mooy sa vrai sens maanaam valeur bi nga xamante ne moom la alxuraan am ñun dañ ciy sant yàlla bu baax xam nga yàlla dafa tottu ba ci rek mu ne walayli isa yaxsha wa nahaari isa tajalla wa maa xalaqa zakara wal unsa inna sa'yakum lasata mu ne fa amaman axta wa taqa wa sadaqa bil husna fa sanu yusru li yusra wa amaman baxila wasdaqna wa kazaba bil husna fa sanu yusru li usra xool lii rek di rafetee xam nga yàlla dafa toog ba càgg mu ne wa layli izaa yaxshaa bu ñu demee ba nga xamante guddi gi muur na bu guddi gi kukkee lëndëm ku tërus nga ne ah. mu ne wa naa nga ne ah. mu ne wa maa xalaqa zakara wal unsa inna sa'yakum la shatta bindu ma góor ak jigéen lu dul dañuy dox dox bu wutee man na dox góor ak jigéen wutee gi xam naa ci leen la waaye ci diine góor day julli di jigéen day julli góor day woor jigéen day woor lépp daal ñun ñoo ko bokkale kon lu yàlla bëgg wax loolu foofu kon wala li isa yaxsha mooy xàqatu Muhammad yitu buñ demee ba nuboo yonent yàlla Muhammad na kuk mooy bu demee yonent bi dawal mu nuboom ba nuboom jeex lu war a ñëw wilaaya te guddi mooy nubuwa waaye ne bëccëg mooy wilaaya moo tax yàlla mu ne wa nahaari isa buñ demee ba nga xamante ne bëccëg gi jolli na feeñ na moo tax ruuhu dafa lëndëm ana ruuhu yaa nga gis mooy nu boobu mooy yonent yàlla Muhammad lëndëm na ci biir yaram waaye yaram nag moom dafa leer dana am bàcc nga gis ko ruu mooy góor yaram mooy jigéen ruu mooy tëbb yaram dañu tëbb moo tax ruu mooy dugg ci yaram bu ko defee muy tëbb bakkan muy nooy bakkan kese du nooy tëbb nopp muy dégg nopp kese du dégg tëbb bët muy gis bët kese du gis mu tëbbu làmmiñ muy wax làmmiñ kese du wax mu tëbbu loxo muy jàpp tëbbu tànk muy dox tëbbu saakar muy sëy kon kii mooy góor kii mooy jigéen moo tax bàyyi mu naan mumidun wal ghayru mustamidun wa man yaqis amiran bi mamurin alayhi xitaaw lii nag la di jàngale moo tax mu ne wa maa xalaqa zakara wal unsa inna saxikum la chata binduma góor ak jigéen mooy binduma ruux ak yaram binduma yonti bi ak chanamati yaam binduma sharia ak tariqa inna saxikum la chata loolu ñuy dox dox bu gutee bu yonti bi ñëwee dox ci guddi muy charia Cheikh Tidiane ñëw dox ci bëccëg muy tarixa bu ruux ñëwee dox pour si dégg léegi yaram moom ñëw dox ci nopp ba mu jeex na saxeekum kon yonente bi ñëw na Cheikh Ahmad ñëw na ku des mu ne fa amaman ahta képp ku joxe sa bopp mooy nga jël sa bopp jox ko bàññes wa sadaqa bil husna nga dëggal ihsaan kuy ihsaan islam kan la iman la ihsaan kan la mu ne wa sadaqa bil bil husna nga dëggal ihsaan kooku fa sanu li yusra dañ ko jàppandal ak jàppandal moom dana yegg ci yàlla yegg gu yomb comme ni bàyyi dama waxee naan tawaytu wa sahaltu al tariqatu ila al li kulli muridin wasli bil xaqi waaye yàlla ma ngay waxaat mu ne wa amaaman baqi la képp ku nay ba bañ a joxe si bopp wa amaaman baqi na wastaqnaa nga beew ne man du jox sama bopp Baay Ñas wa kasaba nga narloo bil xusna Baay Ñas Mansoura kooku daneen jàppandal ci moom ak métti ak jafe-jafe la ñuy jàppandal ci moom lu mu def du sotti même bu doon am ay milliards billaahi mi ngi ci jafe-jafe parce que jafe-jafe dëgg mooy réer yal moo tax ma ne kon islaam mooy papaay ñëpp imaan mooy yaay ñëpp ñu ëmbale ci ihsaan islaam mooy yonent bi imaan mooy sewtiyaan ihsaan mooy bàññaas léegi nag islam ci boppam dafa am trois manazil imaan am trois manazil ihsaan am trois manazil mooy ay wàccuwaayam islam am lu ñuy wax tawbatu istiqaamatu taqwa iman am na lu ñuy wax sidduqu ixlaas tumaan am na lu ñuy wax muraqaba mushahada maarifa kii am ñett kii am ñett kii am ñett trois fois trois trois fois trois neuf kon papa yaay ëmb papa yaay ëmb ñett ngay am ñett ñett yooyu bu nekk am ñett muy douze moo tax baay mu ne daamat xamlul aadi suhuran akawha a lam toxsis lawu bi si xaali mu ne ëmb yonent bi sax na juróom-ñeenti weer yoo xamante ne yaa am dara moo tax juróom-ñeenti maqaama yii képp kenn si ñun yaa ngi ko ëmb te yëgoo ko amul kenn si ñun koo xamante ne ëmboo juróom-ñeenti maqaama yii te yëgoo ko parce que ku nekk am nga ruu am nga yaram am nga xol sa ruu gi am na ñett sa yaram am na ñett soxol am na ñett lii yaa ngi ko ëmb bi nga juddoo ba léegi te yëgoo ko moo tax daama moo tax yonent bi képp kenn si ñu doon mi ngi ci daama xam lu aadi suhuran akaw haa tisaatan lam tonsis la wubi si xaali kon bàyyi na lawla habibul murtada maa nii la maza yurtada wa diinuhu la zirtada ilaa wu fil azali fii la yàlla inspire woo nag balaa nit juddu foog mu am baay te loolu moomoo ko parce que baay ki ko jur mooy islam te islam yonent bi moo ko moom ki balaa juddu foog mu am yaay te yaay ji moomoo ko yaay balaa juddu foog imaan wàcc te ki moom imaan mooy yonent yàlla Muhammad sallam nit ku juddu foog ñu ëmb ko foog am existence boobu am mooy ëmb te ëmb gannaaw baa baay yaay mooy am foog sëy am ëmb dootu am te ëmb boobu amoo ko balay am am te ixsaan ki nga mu yonent yàlla Muhammad foog ñu am le neuf mois te neuf yooyu tamit moomu ko ngay am neuf taw tawba dana ñëw istiqaama taqwa sidqu ixlaas tumaan na mushaada maarifa yooyu yëpp dana ñëw mu door a man nga door a judd moo tax bàyyi ne xarit yi madhen hashimi mu ne sama sama way man xam la mooy samay mbir mooy teg yonte yàlla Muhammad sallallahu waaye wa man arit wa man alit ku jur fa naraaw bil mahmudi xayra anim ku ma jur rek maa ngi koy tuddee yónni yàlla Muhammad sallallahu mu ne walaw balagoo alfan wa insaado même su ma amoon junne doom wala sax mu ëpp junne danaa ko wooyee yónni yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais nag loolu war nañ ko xoolaat bàyyi na bu amoon junne doom dana tuddee junne doom yëpp yónni yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ndaw bëggeel ndaw ko bëgg yonent bi ndaw ko tar bëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi waaye nag baay amul téeméer doom yu mat waaye gis nañ ne tuddee na keneen ku dul yonent bi ci zaahir laay wax nag ci zaahir ci zaahir laay wax ndaxte am na ku ñuy wax bay mbay si wala kooku yonent bi la bu dee yonent bi la ñi ñu ñoom Umm Kalsum hmm, Roqiya yooyu yëpp la salaa salaam waaye nag bàyyi li mu wax dara du ko dindi bàyyi li mu wax ko dindi dem safara bàyyi waxam moom dëggal rek samix naa wa atax naa waaye ji nga nit balaa judd foog mu jaar ci maqaama yi laa la wax te bu fa jaaree bu juddoo rek nekk yonent bi sallallahu alayhi moo tax noo ko mën a tuddee rek bi ko tuddee sallallahu alayhi kon ñu ngi sant yàlla bu baax ci juddu googu baa nee na murtada bi tarfi ki hiilin bi naatu rabbuna mutaal bi ñëwee woowa maxtun zuratin woowa maxtun dainun akrim bi zeeni rijal baa nee na yonent bi juddoo rek xamaladul lam laa ko naxwa bi xaarin wa jinaanin wa baada allahu akbar bàyyi moo wuteeg ni muy woyee gaa yi ci yonent bi moo tax mu ne ndeysaan woykat yëpp am na problème ci ni may woyee ñu ne mu ne sama sama diggante ak ñoom fa bay nii wa bay na maarihiina sarabixun sama diggante ak diggante waykat yi ay àll yu bëree ci dox waxuurun te dafa am ay obstacle non seulement distance bi dafa am ay obstacle yu ci nekk fa maa jiba dégg muy war li mat ci sama tagg yi sarbaxun gars yi di si dagg benn mandik maanaam distance nekk sama digg sama diggante ñoom ñoom du jàppandi si ñoom pour ñu man cee éliminer benn distance pour gën ma jege waaw loolu lu leer fa bay nii ba bay na maari xina parce que baay moom képp kuy tagg yonent bi nekk ci naf su xalqiya di way ci yonent boo xamante ne day dee ñu sul ko baay daf lay weddi parce que ndeysaan yonent bi du dee yonent bi dafay xaraam ci moom mu dee parce que yàlla dafa ne annabi yu awlaa bil muminina min yonent bi moo gën a yeey ci ñi ko gëm ci seen bopp koo xam ne moo la gën a yeey sa bopp nag xaraam na ci moom muy dee yow ngay dund parce que moo la gën a yeey sa bopp moo tax boo fi nekkee rek moom moo fi ne sang bi day jàngale mu ne ki gën baax ci misaafoon yi mooy yonent ci Muhammad sallallahu alayhi ki ëpp njariñ ci nit ñi mooy yonent bi léegi kooku bu dee ki gën a bon ci nit ñi mooy iblis ki gën a mën a yàqal nit ñi mooy iblis kooku moom deewut mooy kon ñun fu ñu jëm kii day liggéey jëmale nit ñi àjjana moom dee na kii moom day liggéey jëmale nit ñi safara moom deewut mu ne kon fu ñu jëm mu lii bu ko nangu bàyyi na afala samsu diin ismatataha suma amal wara zalama dalal waaye nag aqbalat baaduhu day yaajun fala daw ulana wala alamu shubbu la yaali bàyyi mu ne bàyyi dafa sang bi ñi ñii wax na yundub dee na bàyyi daf leen daf leen yëjji daf leen saboote daf leen kókkali ah, afalat suux samsul diin jëntab diine bi ah bàyyi loo bëgg a wax bàyyi gaawal boo taxawee foofu mu ñaaw de jënt diine bi suux na mu ne kañ isma taha bu na bu dee yonte bi dee na daal jëntab diine mu suux na su ma amal war a topp mu mataale ci mu ndaa fool yi zalaama dalaali lëndëm ak ñëpp bay nekk ci lëndëm ak réer parce que yonte bi moo war a leeral salaamun ala man jaa wal kawnu kulluhu zolaamun wa min anwaar xatana wara kawnu bi yëpp baa na dafa lëndëm ki ñëw nag indaale leeram nit ko bam mu leer ko mooy yonent bu dee bi dana lëndëm buy dee kawnu bi lëndëm moo tax bàyyi mu ne aqbalat ba'du dayaajun gannaaw bu yonent bi dee li ñuy dikk li ñëw mooy ak lëndëm falaa daw lanaa du am leer wala axlaa mu ne borom xam-xam yi fiy des ñi leen jàppee borom xam-xam subb la yàlla ñu ne mu ñooñu comme ay sondel xam nga sondel leeru sondel non seulement du yàgg mais du yaatu te day yomb fay bu ngelawee mu fay moo tax boroom xam-xam yi fi nekk yëpp ay sondel leen wala alaamu subb la yàlla bàyyi ne fa baqina min faxti taha musaabin bi karbin yaxsha ma ahwaali kon bàyyi yonent bi deewul anamu mu ne wala wu fi xabrin xayaatun yonte bi mu ngi ci biir xabrom bi di dund fataa xayru faanin fa zaaka mislun tixaali fa huwa baaxi fi laay qabla ma maatin summa min baadi ala kulli aalin rubama sahada al amina rijalun kullu aanin min duni ma ashkaali bàyyi mu ne fa li haza lam yuwarisu badrun hal yuwarisu hayyun ka misli mawti ba waali innama al aalimuuna warasutaha xirsawu ilmun duna ma am waale bàyyi mu ne walawu ñeel na ko moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi xabrin ci xabru bi xayaatun muy dund waaye naka la nit di dundee ci xabru non bàyyi nag waxam it nag neexul comprendre nag sànq mu ne xamal baay bàyyi di bëgg wax la mooy xabru fee nee na ala layti sihri al yara naas ma ara walakin suduru naas suduru alamina qubura mu ne ndax nit ñaa ngi gis li may gis mu ne ndeysaan malheureusement nit ñi gis li may gis ndaxte nit ñi seen dënn yëpp ay xabru leen moo tax xabru xam-xam la da ngay dégg alquran naan isa xuburu bon sirat bu demee ba nga xamante ne xabru yi dekki nen kon luy xabru bi sang mu ne xabru néew kase xabru amut néew kese est ce xabru la mu ne pax buñ gas kese ba pare donte dañ ko gas pour nit est ce que xabru mu ne mais ba boolee pax mi ak néew mi mu door a nekk lan xabru mu ne jigéen góor lan la néew la góor néew la jigéen lan la pax la jigéen ngee góor gi bu ñu àndee ëmb bi moom mooy xabru bi bu juddoo nag moom mooy xabru bi dekk na nga bàyyi naan xayaati rumuzun kulluha wa isaratun waaye tu fasaru mama zalika al xabru bonsira akwaana wa isa xuburi bonsira li tax xar bu xabru war a tekki du xabru zahir bi du bii xam nga ne xabru bii xaraam na mu ñu dem ci bis rek mu mu bàyyi di dekkee foofu wala foofu lay dekkee te bàyyi na sama dund yëpp damay damay def ay isaar rek damay def ay ay exemple rek waaye loolu du fireeku mukk exemple kenn du ko xam lu dul rek sama xabru bu dekki kon luy xabru sag mu ne néew bi ñu suul mooy yoon yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam pax mi ñu ko suul mooy Cheikh Ahmed mu ne waaye nag boo boolee néew beeg suul bi xabru boobu mooy bàññas moo tax bàyyi dina sama dund yëpp xabru la waaw dana fireeku nag bu xabru bu dekkee fa xabru boobu di dekkee nag beneen maqaama la ci kanam moom voilà ku laal ñu sant yàlla bu baax ci maqaama boobu léegi nag moo ma ne kon abda euh, ni ñu koy waxeeti leer gi mi ngi toxu ci bëtëb yàlla bi moo tax nit yàlla yi ñu ngi koy gis jéegoon a zaatu wàcc si àqun Muhammad yoto te moom Abdoulaye kan moo ko jëlaat ga mooy Aminatu bintu Wahab te moom mooy ndeysaan xaqata Ahmad yoto di Mawlaa Cheikh Ahmad Tiyaani ñi ëmb ko ëmb gi mooy kan mooy Mawlaa Cheikh Ibrahima bu juddoo kan moo tax nga dégg ndeysaan bàyyi naan bi ma walidi naylal fatxi wa asrabu ma asrin balmiya mu ne ba mu ne yonte rek ma am fatxu man daal li may xaar mooy juddoom gi suy juddu may am vote te lii buñ ko méngaleeg beneen wax problème am parce que bàyyi toog na ba càgg bu ne wax xatta ma fatxi inde mahdi wa xad hanat jamiu rijalin taxta xadaa yi mu ne fa maa xatawu fi sharqi wal xarbi fat fadat ilaa ilaa makkata ilaa lisami sasayi walim laa walim laa waa ayni yowma aynu muhammadin sara sirruhu fi haykali wa ruwaayi waaye nag wa ahlu zamani kulluhum faasa raaxiyan siwaa man xalaa nax ji asiru awaay bàyyi nee na ma fat yi sama fatu man bàññes mat na ci sama berso samay laytaay man la matee mu yemoo mbooleem góoru xëy bu yi foofu laa notee góoru xëy képp kuy góor yàlla rek yaa ngi sama suufu àtte maa ngi la teg sama suufu ndëggu nii dëgg la moo defee mu ne damay dox seen kaw tt bàyyi góor la bàyyi nee na gars ponkal yëpp lay dox wa ura mu ne xoolal yow mi am ma gis foo xal kibaar yi maa ngi ci kaw ponkal yi ponkal yi ku gën a ngan rek maa ngi dox ci kawam la altaxi fi hayaati sama dund gi mukk gis toroxtaani mukk wa ura te da ma gis boo ma boo ma xoolee da ma gis foo xal kibaar yi ma nekk ci kaw ponkal ñi képp kuy mag maa ngi sa kaw bilaa kaddin wala taxabin maa ngi koy def sans problème facilement laa koy def kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahim moo tax bàyyi nee na fatoo mat na ci berceau fee mu ne day xaar yonent mu juddu mu door am foto ban yonent bu dee yonent bi feeñoon maa juddu woon naa avant baay kon yaa moo tax yonent bi fa mu nekkoon mbir la fa wàcc si baayam mbir la fa si yaayam mbir la waaye na fañ ko ëmbee mbir juddoo mbir kon nag seetlul bu baax fa nekkoon ca yàlla mbir foofu mooy xadratu haahut mooy ashadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah fa mu wàccoon ca baayam mbir la te foofu mooy xàqatu muhammaditu mooy laahut di iqaami salaati fa nga xamante ne moom la wàccoon ca yaaja foofu mooy jabaroot te mooy ahmadiyatu di mawlaa Cheikh Ahmad Tijaan di itaawu zakat waaye nag fi nga ko ëmbee ëmb bi maqaama la jigéen nekkoon na fi lu yàgg te ëmbut fi nga ko ëmbee foofu maqaama la foofu mooy xilaafa Cheikh Ibrahim mooy malakoot Cheikh Ibrahim wax dëgg yàlla am di sawmu Ramadan waaye fi mu juddoo boobu mooy xadratul baqaay di ajul beyti foofu fii la tamit alaa kulli ñu ngi juróom yii moo tax ponk lislaam nekk juróom moo tax julli yi nekk juróom moo tax maraatibu salaat yi nekk juróom ci biir julli juróom juróomi maqaama nga ciy def moo tax continent yi juróom la moo tax océan yi juróom la moo tax awraab tarixati yaan juróom la moo tax wasifa juróom maqaam moo ci ne loo xool la di nga fekk ne juróom yi bokk moo tax télé bi juróom moo ci nekk moo tax sam caméra bi juróom nekk ci moo baaraam bi juróom bi juróom bi juróom bi juróom kazalika ne lal xams li xamsin xaafisan wa xamsin li xamsin neex ma haza li tax nag bàyyi naan saral Moustapha. laylan wa waafa. araj naa biha wal li mu taqdim bàyyi mu ne yonent bi rañaan na ci guddi. mu indaale juróom. juróom yooyu ñun ñëpp ci leen jaar ba yéeg. mu ne kon ngeen ñeel na ki nga xamante ne moo jiitu ci juróom yooyu. juróom borom juróom yooyu nag moo yonent bi moo tax ndeysaan gàmmu sa bàyyi da cee jàngale jàngale yu rëy rëy rëy. nee na gàmm moo gën a foor laylatul xadr mu ne te laylatul xadr yàlla wax na ko ci alxuraan ba ne xayru min alfi sahri mu ne laylatul xadr moo gën sax junne guddi mu ne te junnee guddi mooy quatre-vingt-trois ans juróom-ñett fukki ak ñett mu ne te gàmm gën a foor te yàlla wax ko ci alxuraan mu ne lu la arab yi wax ne kawtéef guddi soxlawul teetal mu ne bëccëg soxlawul teetal ndaxte nee na leetu xadar bu ko yàlla waxtu ci alxuraan kenn du ko xam waaye gàmm moom lu nit dof-dof xam ne nag war nañ ko màggal mu lu tax mu ne parce que leetu xadar lu tax mu màgg mooy nuzulu malaaykat yi yàlla dafa tan nuzulu malaaykat wa ruhu fiha malaaka yaa ya wàccoon noonu moo tax leetu xadar fort mu ne naka kon juddu yonent gi nga xamante ne bu amutoon maanaam alxuraan du am duñ xam leetu xadar alxuraan bi wax leetu xadar ko duñ ko xam naka guddi gi nga xamante ne kii wàcc si guddi googu yàlla ak yonent bi euh, yàlla ak malaakaam bi dañoo julli ci moom inna laaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi mu ne kon man li may wax sax moom mooy gàmm moo gën a foor fuuf laylatul qadr sang bi ne gàmm moo gën a foor sang njaay mu ne gàmm moo gën a foor julli gàmm moo gën a foor woor moo gën a foor aj màkk moo gën a foor azaka moo gën a foor ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna ñu ne ko ah sang li nga wax de mu ne waaw ndax bu yonent bi ñëwutoon ah mu ne arpente na wàcc ñu ne ko déedéet mu ne ndax bu yonent woon yonent bi ñëwutoon dana wàcc ndax bu yonent bi ñëwutoon or dana wàcc ndax bu yonent bi ñëwutoon asaka dana wàcc ndax bu yonent bi ñëwutoon xeeti jaamu yàlla ñi jaamu yàlla ñi yëpp dana wàcc ñu mu ne ki wàcc nag loolu yëpp wàcc si wàccam gi kon kooku moo gën li wàcc kon alaa kulli yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax gàmmu xewal la ndaxte ki ci wàcc mooy xéewal te kooku mooy yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam Alxuraan dafay ñuy wax ne mu ne laqad man Allahu alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan yatlu alayhim ayaatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaab wal xikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin yàlla nee na yàlla xéewal na aw xeet ba mu yónnee si ñoom yónnant moo tax xéewal loo ko mën ci jàppee billaahi loolu du xéewal xamul tax bu dee oto bu rëy nga am bu rafet nga ne am naa xéewal loolu ah Bill Gates la ko ëppalee yéefar yi am nañ ay kii nii ah yéefar yi am nañ ay oto mm. te jullit lépp lu muy am loo xam ne yéefar mën na ko am waroo ko xeeb geddal lool mm. bu dee kër gu rafet yéefar yi la ko dàqale ah bu dee lekk lu neex yéefar yi la ko dàqale kon la mooy xéewal mm. yàlla mi ñuy jàngal xéewal nee na maanaam yónnante bu may yebal ci yéen yéen moom mooy xéewal bi laxat mën na laaw yàlla xéewal na aw xeet isbance fii mu rasulan ba nga xam ne yónni si ñoom aw ndaw ndax loo xam ne bu ñëwee lu muy def mu ne yaddu alayhim ayat yi muy jàngale ay yàlla yi kii ñëw di la xamal yàlla mi nga xam ne mooy si borom hmm? wa yuzakkihim yow nga xam ne borom bàkkaar bi ku tilim nga mu lay sellal wa yaalim kitaab mu lay xamal téere bi yàlla bi te téere bi yàlla ne ni iqra kitaabaka nga ne ah, mu ne kafaa bi tafsika jàngal téere bi nga ne ah, mu ne na sa bopp téere bi yow la am na xaaj kaw mooy sa ruuxu am na xaaj suuf mooy sa yaram am na kaamil mooy sa xol iqra kitaabaka kon jàng ko sa bopp oh, ah? kon kooku bu ñëwee da lay téere bi mu xamal la atteetéer bi wala xikma wax naan ko ahlan bi is jaana manan bi daf xima alada min murtilin qad saana bal kullu seyin mushkili mu ne ñu ngi koy ndokkal si ba nga xamante ne dikk na si ñun nekk xéwal ñeyal ñu bàyyi moom gis na li li yàlla centré xam nga attaquant bu mën a mbëkk jiga boo amee bu góose bu mën a centré bu centré da nga koy def ci kaa yi moo tax yàlla dafa dane laxat mën na laa wax la muminin is base fii rasul bàyyi ne ahlan bi is jaana manan mu ne ñu ngi koy dokkeel si bi xam ne dikk na si ñun nekk xéwal bi daf yi maalanaa pour muy jañ di puus li nga xam ne ñeel nañu mm. min moo di liñ ci ay jafe-jafe xacaanaa ay ñaaw-ñaaw mm. Mm, ay jafe-jafe yoo xam ne daf ñuy ñaawal bal kullu shay'in muskil bàyyi sax lépp loo xamante ne mu gën a nekk ay jafe-jafe yonent bu ñëwee da koy puus léegi nag yàlla nee na fa amaa bi neexmati rabbi ka faa diis xéwal borom bi dee ko waxtaanee yonent yàlla moom mooy xéwal bi mu ñëw nga ne duñ ko waxtaanee yaa bon ah yaa nay waay yaa nay ñu war a waxtaane yonent bi ci weer bi mu juddoo nga ne kenn du ko def bidaa la ah yaa nay yaa na xéwal dañ sant bi ni'mati rabbika fa hadis yàlla nee na xéwal yi sant te xéwal muy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam boo ko xamutoon ñu wax la ko ci Alxuraan Alxuraan nee na laqad manna Allahu alal mu'minina a ba'atha fihim rasulan yàlla nee na man ku ma yónnee ci yow ndaw defal naa la xéwal yàlla nag ne yonte bi ne atahaddasu bi ni'matillahi shukrun watar quoi kufrun nee na tudd xéwal yàlla yi mooy di ma wax man yonte bi di ma waxtaanee nee na loolu mooy sant yàlla ah waaye nag ñàkk maa tudd nee na loolu weddi yàlla mooy kéefér moo tax xool yéefér yi dañ naa ba ñu wax Muhammad Rasulullah te képp ko wax Muhammad Rasulullah rek tuddoo ko tuddoo ko waaw dañ dem ba ñu wax Muhammad moo tax ñàkk a tudd yonente xéwal wax tudd xéwal yonente bi sallallahu loolu mooy kéefér ñun nag ñu ngi koy tudd ñun avec boo de fierté nag wax dëgg yàlla am bàyyi dafa wax ne fa xis marhan maa dumta tadri muhammadan fa daari suma mahmoud fi dari xufis na ndeysaan fa xis marhan dugal dundal avec fierté dundal nga kontaan maa dumta tadri muhammadan tant que yaa ngi xam yontu yàlla muhammad sallam mu ne fa daari suma mahmoud yi xam tur yontu yàlla muhammad fi dari yi xufis cest à yëpp dañ lay dañ nekk koo xamante da ngay nekk ci garantie nekk ci sécurité bàyyi neen maa ngi koy tudd li yasaada nii xar nii wa nasli wa mandra sumaati mada ana bi husni xitaami nee na dama koy woy man ngir ma texeel sama waay jamono képp ku ànd ak man képp ku ma gëm rek texe wa nasli sama mbokk yi képp ku bokk sama askan rek dana texe si woy yi may woy yonent bi saa salaam wa man dara sumaati ak képp ku xam sama tur ku xam ne man bàyyi gis laa tudd rek da nga texee ci tadd yu tagg yi nga xam ne maa ngi ci tagg yonent bi madaana bu husni xitaam yi ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne waax dawana jërëjëfe moolana cheikh ibrahim anihali ibrahim laa xilaaluhu xilaalun bada li naazirina jamaaluhu xilaalu rabbi fii jaa muhammadun fatama lana albushra wa amma nawaalu li afdali ardin alla afdal mursalin bi afdali yowmin fasta baana kamaalu waax dawana